dañuy correct dañuy correct monsieur le maire ñoo ànd Banjul ñu nekk ci mairie bi waxuma jaaxal bi laay gën ñu nekk ci mairie bi boobu ay xale lañ nag ay 70 la 70 astafurla 40 non 30 ay 1930 maa ngi toog monsieur le maire mu ngi toog monsieur le maire jékki-jékki commencé nelaw ba daanu noonu nelaw rek continue man daal maa jékki-jékki mairie bi ban ñu oo ay chinois mënuñ ko defar ma ne ko monsieur le maire mu ne waaw ma ne ko affaire bi baax na de te sa xam-xam rek koo mën a defar mu ne ma ah mu ne boobu maa ngi soloon bi bu xonk la engrais sécurité ma jox ko bii la woon bii laa am na cinquante ans bi monsieur le maire wàcc rek jël pile bi rek takk si nit bi takk ko bi si gannaaw fii bi wàcc si léegi nag ci biir mu ngi am ay jigéen yoo xamante ne daal dañuy def jigéen yu bëri maanaam jigéen ñoom jigéen ñooy seen liir nekk ci biir dañoo kontaan ba juddu commencé naa. waaw looy indi de yow eh monsieur le maire yemul foofu de monsieur le maire bu leen ko gis ngaaka la woon ngaaka moom du woon nandite moom bu muy ñëw fii bees ñoo àndoon jóge fii fii mu ngi taw taw yi métti. ñu dem Dakar monsieur le maire wàcc rek affaire yi commencé foofu tawul te fii daf di bàyyi taw ma ne ma waa Sadio ma ne ko waaw ñu ngi mu ngi taw tey te ma ne ko eh yow xam nga xanaa xamoo Dakar ko baas waaw mën na nekk Dakar dañ ko baas moo tax bu jeexee foofu noonu foofu du taw léegi fii day taw ndax baas lañ ko. waa Kaolack amuñu baax heure boobu noonu waaye léegi Moussa ne def na ko baax kañ ngeen gën a gis fii nii taw kañ ngeen fi gën a gis taw déwén ngeen koy gisaat ah, déwén. waaw lii euh, benn séeréer la séeréer bi dafa bëgg ngalax ngalax ngalax ngalax ba mu tax ngalax tax mu ne moom day dee ndax dëkk boo xam ne boo dee rek dañ lay sangoo ngalax mu ñëw rek na këlëb daan. gars yi wër nga lax wër nga wër wër dege ba sonn amuñ ndax soo amul dege doo nga defar nga lax n'est-ce pas ñu ñëw ñu ne xee ngóor ak nu mu bëggee woon nga lak war nañ dege ba sonn amuñ ngóor génne benn bëgg dem leen si yaafaatu yaafaatu am na dege